rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi bàyyi xel seen site bi di Arafat info ñu ngi am mbégte kontante di leen nuyu waat ci eh, site bi waaye itam di leen sant di leen gërëm fu ñu mënti toll ci seen abonné ak bàyyi xel eh, site bi eh, gannaaw loolu ñu di leen wax déwénati bal la ñu wax waaye itam di leen xamal na ñun baal nañu leen Euh, bisu tay bi di bisu siyaare wante bisu balonte ak bisu ndokkelante euh, di bisu korite waaye itam ñu génnee ci liggéey bu ama am solo mu di weeru koor loole waral ñu toog tey ak suñu ñaari gan yi ci sama ndeyjoor euh, Seydina Omar Abdoulahi Dramé nekkee ci sama càmmooy Seydina Omar Alioune Dramé ngir ñu war a def ak euh, waxtaan jëmale ko ci koor gi nga xamante ni ci li ñu génn waaye itam bis bi nga xamante ni ci li ñu nekk muy bisu ayit waaye tam li ko dale bisu ayitu tey bii ba kooru déwén lan lañ ci mën a jël comme euh, sërite wala boog yóbbal ak doxalin yoo xamante ni war nañ ko mën a gañee ci biir koor gi incha allah waxtaan yooyu lañ bëgg séq ak ñi nga xam ni moo di suñuy gan. balaa dara ñu nuyu leen dalal leen jàmm ci palaato bi waaye itam baalu leen àq Seydina Omar asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ngi ci xarala bi di leen gërëm di leen sant di am mbégte bu ci jotaay bi. macha allah delloo la nuyoo beeg euh, ziar bi euh, ci suñu càmmooy Seydina Omar Alioune moo fa nekkee ñu nuyu ko asalaamaaleykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين يودي زيارتي بزبي مش حاجة دي هاي الفطر. بزيارة حاجة عمر عبد الله. دي زيارة حاجة مدينة خرالقي. آه، voilà, je sais que le bisbe a بزبي fait et nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un Djoulé Kaïba, l'imam, l'Elaj Basir Dramé, waye tam ci teewaayu khalif bi ak mboolem njabootu elazi Omar Dramé li ñuy njëkkee laaj comme question moy Serigne Omar abdullah khutba bi nga xamanteni déglu nga ko tay ban jàngat ngeen ci mëna defal mu joggé ci imam bi El Hadji Basir waaw kay jërëjëf sëñ Mansour khutba bi ñu dégg ci al imam suñu ba baay bashir ma sha allah nga xamanteni mom moom aalim la ñu ko faral di wax aalim zahid wari'i muttaqi borom xam-xam la ku dëddu àdduna la ku sàmm la ku ragal yàlla macha allah mu doonee ko ci bàyyi ak maam ya loolu moo nekk ci xalifa bi suñu baay Ahmed moom euh, macha allah li bay biraan war di waxoon ni àndaar la joo xamante ni muy xalifa bi ku natt ci moom yow doo feesal mukk xamante lu yaatu la daal moom gis ko rek mu xalifa bi moom boo ko gisee rek moom doy na waar waar kon li nga wax ci xutba bi al imam Haji Bachir ñëw ci wàllu comportement yi jullit bi war a nekk diggante suñu borom ak suñu diggante indi na ci lu yaatu ak koor li jàng mi nga xamante ne ni moom lañ ci war a jëlee te mooy ak taqwa bi yàlla wax ci alquran laallakum tattaqun mooy résultat bi nga xamante ne moom lañu jëlee ci koor indi na ci lu yaatoo yaatu macha allah ci xutba bi ba ci suñ comportement suñ diggante ñu ñu ñun jullit mu ñu war moytu ak ci wàllu bor ak ba ci wàllu banque yooyu yëpp ñëw na ci ndax ci ba tey li ñu ci mag ñi nett li bay bu daan déggoon nañu wax ko suñu maam xaaj ma Dramé wàllu banque yi mosu ko nangu te bii ko fi tubaab bi indi am na ay kilifa yoo xam ne demoon nañ mhm. comme ba tey ci biir xutba bi mhm. euh, imaam bi indi mhm. allah euh, tënk la bu gàtt waaye xutba bi li lépp lépp lépp si ko wax ci jotaay bi waaye ngeen xamee ci rek si nga xamante ni xutba bi am na ko Sidna Omar xutba bi nga ci am yow bi xamante ni teewee nga ko déglu ko incha allah solo trop mel ni li nga yomal waxee dafa tënk ci ñaari point yi moom ndax daanaka xoolee ñaari si ñaari fànn la ci la tënk mm-hmm. xutba bu njëkk bi dafa ko tënk ci wàllu maanaam bis bi mm-hmm. soley bis bi mm-hmm. ak soley muudu koo comme li ci fukkaaw yi wax naka lañ koy génne kañ lañ koy génne wax na ci macha allah lu leer dugg ci ni ñuy feetoo bis bi ci wàllu col gu rafet ak ku am ku ko am sopp nañ ku ko amul it nga ñëwee ñi nga xam ne moom nga waaw fa tabarakallahu mu mel ni xutba yi comme ni ñu ko waxee dafa nekk dafa aju ci ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi mu ngi doon wax ci solos bis bi te mooy bisu korite mm. waaye la ko jiitu lu jiitu ngay dem ci jullikaay ba nga génn li ñu xam maanaam mu tam koor mm. ak naka lañ koy génne ak ñaata lañ koy génnee li ci aju yëpp faram faj na ko ci nag mën a leeree mm-hmm. mu jeexalee foofu it mu ñëw ci maanaam résultat wu koor li ma def ci doomu mm-hmm. mooy ci wàllu waaraate bi mm-hmm. après dafa ñëw ci wàllu euh, waare wala ku ku ci koor nii nga war a mel ni nga war a dundee. Mhm. fa tabarakallah bu wax ci lu yaatoo yaatoo. macha allah mu mel ni kon mel na ni suñu waxtaan lépp daanaka bu ñu ko façon tënk li nga xam ni moo ëmb suñuy question du génn daanaka li nga xam ne moom la xutba bi làmbo Serigne Omar mu mel ni ci weeru koor li mu génnee weeru koor mu mel ni warul yem ci coono xiif ak mar waaye am na benn sëriñ koo xamante ni jurit bi war na ko ci yóbbaloo ba tax. ku ko gis war a xam ne kii kat ku doon woor la loolu lan la war a doon. waaw jërëjëf Cheikh Mansour euh, ni ñu ko waxee rek ci ni nga laaj laajee jógee ci koor lan nga ci war a jëlee loolu mooy yokkute ci ragal yàlla ku jógee ci koor ni ñu koy waxee ni ñu xamee ni sa koor nangu na mooy sa wàllu jaamu yàlla sa wàllu topp yàlla dafa war a yokk mooy warul wàññi. nga xamante ne moom koor ku ci jógee mandat yi nga xam ni kii koor kooram nangu na mooy dafa gën a góorgóorlu ci yàlla wàllu yàlla ragal yàlla am gën a yokk waaw loolu moo ci nekk ndax euh, comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nelawee li ñu waxoon li Seydina Abubakar waxoon ku doon jaamu yàlla xam ne yàllaa ngi fi teew waaye ku doon jaamu Muhammad Muhammad faatu na loolu moom la wax ci koor koor moom koo xam ne koor nga doon jaamu koor moom dem na ku doon jaamu yàlla nag jaamu yàlla moom mu fi moom day day sax moom du duggee mukk jaamu yàlla topp yàlla mm-hmm. foofu mu mel ni Sénégal yi dañ fi faral di réer lu bëree bëri parce que day dañuy dañuy mel ni santaane yàlla yi ci koor la ko def parce que parfois nga dégg ku ne ah bu fi wax lu amul de parce que ci koor nga nekk wala bu fi jëw ndax ci koor nga nekk est-ce que ni ñu jàppee koor waruñ koo jàppee lu dul koor anga koy xam nga koor ci misaal mu mel ni rek ku war a dem defi compétition rek wax la compétition compétition compétition mhm. ngay def entraînement mhm. pour dem boo demee man cee mhm. wane maanaam jom koor nu la mel ci yeneen weer yi des koor gi dañ ci tàggut ci weer yi pour dem ci euh, onze mois yi des mm-hmm. man cay taxaw taxawaay bi war xam nga nag koor ba mu jeex muñ la mm-hmm. muñ lépp lu yàlla xaramal ci yow mm-hmm. ba sax nee na sax li ma daganal ci yow sax muñ ko ay heure nga nangoo muñ li mu daganal ci yow bañ ko laal li mu xaraamal ci yow waxaale wuñu ko kon nag boo génnee ci koor muñ yi xaraam war na yomb comme yaa ngi muñ muñ yi dagan pendant un mois wala pendant quinze jours ndax bëccëg boo ko boo boo ko boo boo trente bëccëg mën nga gam-gam la ak quinze jours bu ko defee loola yaakaar naa ne ku génne ci koor muñ googu war na la mën a gunge ci fukki weer ak benn yi des ba li yàlla tere nga mën ko moytu mooy li xaaj wax léegi mooy taxawaa bi foofu lañu koy fekk comme ni ñu koy waxee eh, gannaaw koor aj moo ci topp te suñu moom nee na wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa da ngeen yóbbu ci aj ragal yàlla te ragal yàlla googu lañ leen wër ci koor gi kon bu ñu ko amee eh, incha allah dinañu dimbale ci ñu continuer eh, di di di jëfee ndigal di maye keneen kon ñu def effort kon ñun ñëpp ak ñiy bàyyi xel Arafat info ci li nga xam ne moo di taxawal la ñu fexe ko làmboo ci suñu bopp waaye tam fexe mu gën ci charge batterie yi ndax bokk na ci mandarga yi nga xamante nii dina feeñal ne suñu koor euh, suñu borom euh, gërëm na ko waaye Seydina Omar mu mel ni ginnaaw bu ñu génnee ci koor bésu tey muy korite la ko jullit bi war a feetewoo ak muy itam lan mooy solo si dëgg-dëgg. macha allah ok bi euh, bis bu màgg la ndax jullit julli ñun ñaari feet la ñu am mooy bi ak tabaski. dañu wax ni macha allah sopp nañ ci nit ki mu bégal ci boppam bégal ci njabootam loolu maanaam yaatal ci njabootam bégal leen ci wàllu euh, dundement lu ñuy lekk ak yëpp rek loolu ci bég ci wàllu bégle daal si fa am na ñu nga bégal ci sa njaboot tiyaabu ju rëy mu sopp nañ nga sol sa yére yi gën a rafet ndax yonent bi sallallahu alayhi daan sol yéreem bu ñuy wax yére bu fonk bu fonk boo xamante bu xonq la ba tey nee nañ iid wa innama summiya al iid iidan li anna allaha taala yuidu al farax wa surur ñu ne li tax ñu tuddee ko iid iidul fitr wala iidu tabaski parce que day delloo si ci nit ki mbégte wante bu ñëwee ñi sa borom sant yi moo bañ a tooñ gis nga ni ñuy bégee borom yenn sant mm-hmm. kon day delloo si mbégte ci jaam jaam ñi beneen beneen wax bi ñu ne day euh, dañuy wax euh, jullit ñi ne leen ci bisu korité wala tabaski dellu leen seen kër yi ngeen nekk ñoo xamante ni maxfuuran la ko yàlla jéggal na leen seen i kon bis la bis la bis la bu bu rëy rëy rëy muy bisu korité macha allah macha allah waaye itam mu aajo li xam ne moo di ci bis boobu la ndax euh, lu bëri danañu utiliser moowu sénégalais yi fekk ñi ñuy waxal ñi ci jiitu mooy sénégalais yi parce que euh, ñoom la ñu yàlla booleel euh, comme li ñu jot a dégg ci Seydina Omar ci bis bi dafa mel ni ba wute na ak ñu bari ni ñu jàppee feet boobule ndax jàpp nañ ne dañoo war a tinkeeku jàpp nañ ne dañoo war a ubbi saison bi comme ni ñu koy euh, waxee ci yenn place yi Seydina Omar ban dénkaane nga war a mën a def ci jullit bi nga xamante ni woor na ba kooram mat ci bis bi nan la ko wara dundule wa fa dundalee. waaw fa tabaarakallaahu xaaji Mansour bis bi ni ko xaaji Omar waxe amna solo trop moy bisu mbégte la waye lislaam dafa am lu wax ay garde-fou am ay ay hudud bu la tegalé mbir mu nek nekk mbégte dafa fum la yam fum la yam lo may na la nga sol lu rafet may na dagan may na la nga wër ziyaare may na nekk fu dagan na nga wax nga wax ne nekk mu nekk loo xam ne lu baax la booy demee nekk fa ngay dem nekk fu baax kon daal mbégte mi na tënku ci ci maanaam shariatu islam yi ndax ni nga ko waxee ci xadis ba li saa'imi farxataan farxatun indal indal fitri wa farxatun indal Hmm? indi liqaay na koor am na ñaari mbégte mbégte bi nga xam ne bis ba ngay koori da nga ko am ak ba ngay war a bay dagg ca ngoon sa waaye benn mbégte ba des moo gën a rëy fuuf te mooy bi ngay dajeek sa borom mooy li suñu borom ne ne ah, asawmu li wax na ajisi bi koor maa ko moom te man maa koy fayal sama bis boobu nag mooy mbégte bi gën a rëy waaye na fekk génnoo frontière yàlla yi mooy bul dem ci yi nga xam ne ay pëcc xoola bul mel meloo woo xam ne woo xaraam la du ci wax du ci jëf loolu daal mooy solo si bis bi tabarakallah ak euh, ni ñu ko war a féetee waaye itam mu mel ni dina am benn euh, parenthèse bu ndaw boo xam ne moo jiitu korite xam naa ñu ngi ko waroon doxale ci diggante koor ak korite waaye nag am solo bu mu am solo moo tax ñu fasoo ko jukki ngir mujjantale ko waxtaan bi muy fi ñu toll ci jamono bi ak ci wàllu saytum weer euh, léegoo léeg wax ji dina bëri fanweeri fan walla gis weer walla yu ni mel euh, suumu leen du xajati wa aftiru leen xajati laa bëgg ku ci nekk ci sama ñaari gan yi maanaam indil ma ci maanaam bi nga xam ne ni moom déggee na ko ci ndax wax dëgg yàlla léegoo léeg coow li dina bari waaye nag euh, ñi nga xam ne ñu ngi ngi am ñu ngi am fu ñuy référé bu day baax loolu ñuy dellu ca place yi xam ne la ñuy war a jëlee ji xam-xam si ndaw ba loolu boo ñu ko doon maanaam ci sa dégg noo koy firndee. waaw jërëjëf sëñ Mansour waaw ci wàllu li nga wax ci séntu weer borom xam-xam yi nee ñaari façon moo ci am ñi nga xam ne am na ñoo xam ne buñ déggee ni màkka woor na ak fu mu doon ci àdduna bi am ñoo xam yàgg ñu yàgg nañ duñ topp Arabie Saoudite mm-hmm. buñ wooree ñu woor ñu ni ah boobu boobu daggal na waaye di gën a wér nag mooy bi nga xamante ni ñu da nga tënku ci sa réew tënku ci sa bopp te ñun fii ci Arafat loolu mooy lu ñu fi xamoon ci suñu ma Alaaji Omar Dramé li ñu doon wax mooy mm-hmm. taafeer mbaa fanweer gis ci ñaar fukk beeg juróom-ñeent mm-hmm. soo gisul nga mottali fanweer mm-hmm. loolu moom ku ci tënku mm-hmm. amul euh, euh, doo doo dugg daal ci yenn yenn yenn coono yi doo teg sa bopp ci yenn euh, muskile kon loolu mooy li nga xamante ni ndax soo mu li ruyati yi hadis bi na ngeen woor bu ngeen ko gisee na ngeen dog ci bu ngeen ko gisee am na ci benn fu muy waxee ni fa in xumma aleykum fa akmilu iddata chaabana yowman su fekkente ni dafa niis ba gisuleen ko waxul ni feeñu kon weer mën na feeñ ba pare gisuñu ko mën na fee nekk fekki loolu moom mooy li nga xamante moom mooy ñu wax sànq kon mën na feeñ te fekk gisuñu ko buñ li tax gisuñu ko mooy niir yi mu ne su fekkee ni dafa niis ba gisuleen ko na ngeen matal fanweeri fan moo xam Chaabaan la wala wala wala wala weeru koor wi ñu waaw loolu daal moom. macha allah nga daanaka sax souligné si point bu am solo. muy fa in xumma. bu dee dafa niis. mu mel ni léegi li waral li waral ñu war ci def taxawlu. mooy dafa am ay jumtuwaay. ak i gëstu ñun yoo xamante ni. day dàq baatu fa in xumma. parce que bu feeñul. ala kulli leen dafa war ñu dañoo dañoo war a xam ne loolu lu nekk la. maanaam baatu bu feeñul bi war a ñoo dàq. bu feeñul bi. xam nga léegoo-léeg sama classe bi dañuy def maanaam dana feeñ force nañ koy amalee nag mooy ci ay jumtukaay yu ñu koy xoolee wala ci ay information yu ñuy gëstu euh, yaakaar naa si dama war du ñàkk ne remarque boobu def nga ko ci tolluwaayu seentu weer ci Sénégal waaw macha allah question bu am solo la bu actualité la mm-hmm. chaque année dafay dellu si waaye dañuy ñaax d' abord sénégalais yi wala jullit yi bokk mm-hmm. ñu jox gëdd mm-hmm. maanaam weer wi ñoo alxamariya mm-hmm. di ko topp a mm-hmm. loolu mooy tax bu ñu àgg ci mel ni lent gi gën a ci maanaam booy bu fekkoon mm-hmm. ni ñuy defee effort ci koor ak kori nañ koy defee ci diggi def ko tabaski ba weer yi jeex ñi di ko séen normal di xam dalit normal su boobaa dana gën a yombal mbir mi waaye comme ni nga xam yombal wax dafa am ay ixtilaafaat ci wala séntu weer noonu la lislaam tëddee maanaam njàngale yonent bi leer na nañ waaye ulama yi ku ne da ñëw ak sa déggin déggin yooyu raxma la ci xeet wi bari nañ ñu jaaxal wuute bi mais mooy ñi nga seen kii ci lislaam demeewul ñu xiir ci benn maanaam ci def defandoo defandoo ak benn bokkul sax julli li mën mën nañu benn fekk duñu defandoo mhm. waxala julli mhm. duñ koy defandoo parce que waxtu yi bokkuñu mhm. réew yi réew day julli tisbaar yow nga toog lu man ay waxtu soo julli tisbaar fii pourtant waxoon ne nañ si mën a bëgg a neexoon ni yëpp nekk benn wala yazaaluuna muxtalifiina illaa maa rahima Allah lii moom la soob léegi nag comme ixtilaaf yërmande la neama la ci xeet yi wala raxma la euh, ni mu koy nekkee mooy ku ne ak li dëppoo ak sa maslaxa benn muy makaan mi nga dëkkee waaye wala muy sa maslaxa yow ci sa jëmi bopp maanaam moo tax wuute yi am mais wuute yi yàqul fekkee technique bu ci lislaam la wax de fekkee wuute gi maanaam euh, masala yi fekkee bu nekk ki ko wax mooy borom mm-hmm. xam-xam moo wax ne nii laa déggee kii ni la nii laa déggee teguwul ci bakkan du yàq dara ñii dañ ne maanaam suumu li ru'yatihi mm-hmm. uh, fa in ghumma alaykum ila akhir maanaam mm-hmm. xitaab bi amma la pour ñu ñëpp la ñu déggee noonu ñu ne bu ñaari ñu mën du gisee rek fu mu nekk ci àddina bu ko dégg war nga mën a woo ñenn ñu ne mbirum iqlim la gox gox bu nekk ak seen sént la ñuy wax ixtilaaful mutaalaa aw mataalaa mu wuuteeg séntukaayu weer dafa am loolu borom xam-xam mu mujj ñëwee dëggal nañ ko mooy ay asar noonu dëggal na ne réew mu nekk dafa am maam gox bu nekk am nañu seen weer na muy doxee buy soog a feeñ est ce que nañ ko gis ci bis mu mënuñ ko gis am na réew moo ko mën a gis fekk yow doo ko mën a gis loolu li suuf si tëddee la ak dëkkin yi yàlla moo bind moo defee noonu àddina loolu moo tax am na ñu ne sax distance distance wàññi kooku soriwante bokkutu leen seenukaay yooyu weer jàpp naa ne fii ca loolu déggin boobu lañ fi jëfandikoo koo xam ne bokk leen distance wàññi rek maanaam dëkk boo xam ne soo fay dem da wàññi julli ñoom ñu gisee weer seen seen weer concerné wu si mu wax li nga leen loolu loolu la macha allah waaye itam eh, ci biir da nga ci laal point bu am am solo muy ñàkk bokk bis bu ñu julli wala juyoo ci wàllu weer dama koy wax lu bëri Sénégal ñi ñi ko def problème dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dañuy wax taxamul xamuñu ko ñaam ñuy def thématique ci télé yi rajo yi ci média yi mais. du problème boo xamante ni lu ñu war a lu ñu war a def la parce que bëri na yu fi nekk yu gën a doon problème te waxuñ ci exemple man ak yow ñu bokk nekk bokkuñ diine moo gën a nekk kenn waxu ci dafa bu muy problème maa yow bokk nañ euh, nekk ci dëkk bi bokkuñu benn tariixa loolu du problème mais nag léegi bokk nañ nekk ci réew mi bokkuñu si buñ julli ñu jàpp ne diine ji moo ci nott wala ñu koy ñaawlu benn réew diine ji dee xoolal lii xoolal ñi aw nañ fekk li bon mooy ku ci nekk la nga def nga teg ko ci naxante wala boobu nga teg ko ci nafsu te yaakaar naa ne masla war nañ ko jëmale feneen ba mu des ci diine ji surtout que jamono bi ñu toll damay def fàttali rek dama mos a dégg ci imam bu jaamal mu imam Aliou Diouf ci xutba muy nettali mu ne El Hadj Abdoulaye Cissé boroom jaamal ci ay jamonoom dafa am benn bis ñu yónnee fa di ko xamal ne weer wi feeñ na yaakaar naa chef de canton mu ne bi mu fa yónnee borom jaamal yónni waat ndaw ngir mu dellu ci eh, ka ko yónni woon laajal ko information bi ndax wér na ndaw loolu bi mu demee laaj ko ñu mu ne ko information fu mu jógee mu ne ko kër Ismaïla lañ ma ko mu laaj ci ko ki ko waxoon foofu ci kër Ismaïla ndaw la continuer ci kooku dem laaj ko ne ko rajo Blay Cissé moom waxoon ma laajal la ko ndax weer wi eh, yaa ko gis wala déet mu ne ko sama benn xale moo gisoon ci ngoon gi waaye heureusement sax nelaw la ca la borom jaamal doxee woon sukkandiku ne yéen waa jaamal ka kon na ngeen di matal fanweer wa ilaa ngeen gis weer kon yu mel noonu yaakaar naa ne bu dee ci jamonoy borom jaamal la amoon njubadi gu tool noonu ak sañ informé lu wérul gu tool noonu sàkkaa suñu jamono bi ñu toll waaye en tout cas li nga xam ne dañ ciy leeral mooy duut jafe-jafe duut problème arafa julli tey dëkk bi julli suba wala dëkk bi julli ginnaaw suba parce que année bi yëpp ñoo ngi julli te kenn di jëntiwul sa morom ban waxtu ngay julli wala de kon yaakaar naa loolu ñi ci wax nañ ci noppi te bàyyi ñi ci war a wax ñu ciy wax parce que mbiru xam-xam la amul fenn foo xam ne nii néew na boobu loo xam ni xam-xam lépp dañ ciy dëppoo yaakaar naa ne parce que ay mashab ñoo fi nekk ay ngir ñoo fi nekk ay tarixa ñoo fi nekk te lépp benn yoon bi la li bon mooy li nga xam ne mooy def loo gëm te dama yàlla jéggal euh, parfois Sénégal ñu bokk bisu julli boo xamante ni wér na la yow Sénégalais bi nag am na koo xam ne mu ngi def mais deful lu mu gëm li mu bëgg mooy ànd naa ñëpp julli ànd naag Sénégal yëpp julli caméra yi dëpp nañ ma ko euh, ñëpp xam nañ ne tey laa julli mais biir na la ne du bisu tey bii nga gëm ne mooy si bisu julli yaakaar naa nag euh, magam jëm bu demee bay def war na di def lu mu gën sëñ am sëñ am kon jàng na wax lu am solo lu am solo mag yi boo gisee ñu daan taxaw ko sax taxawa taxawaay boobu bañ ko fooy seen diine bañ ko fooy seen diine nga xam ne lépp lu ñu def dañ ko def lu wér moo waral loolu nag mu ku ñu jógee fenn ñoo ne gis naa yoon ñu ànd ci ndax dégg na ci ba tàyyi ñoo xam ne bokkuñ ci diini ci sax wane ne at sàngam man maa julli loo julliti nangam nangam am na amul en tout cas euh, bëgg lu gën a wóor ñoo al al al ixtiyaat lu gën a wóor moo taxoon mag ñi gënoon xintewoo taaxal baa xam ne mais du xeeb kenn et puis ci wàllu loi boo xoolee même ci suñu loi àddina yi sax ñi ko jàng buñ koy interprété ku ne ak ni nga ko déggee boo seetloo àddina yi ku ko déggee waaw mu mel ni li ñu wax du xaar benn loi fekk na dégg nii la xam-xam ma mel noonu waaw fekkente ne maanaam li yëf dafa fondamental bu ñu koy faram-fàcce foo mu am ay yoon yoon mhm. loolu yàlla moo ko def pour mhm. mu nekk yërmande mhm. ku nekk nga mën si jël li nga xam ne mën nga ko jëfandikoo mais bu ñu lii la rek am na koo xam ne loolu la daf koy gaañ macha allah loolu la ci am solo la euh, leeral la rek yoo xamante ni baaxoon na loolu ñu def ko ngir ñuy bàyyi xel Arafat euh, info ndax li ko tax a jóg du leen dul euh, informer nit ñi waaye itam di dox ci li xamante ni mooy xam-xam comme ni ñu ko bëggee waaye itam di leeralal nit ñi li nga xamante ni léegoo dina leen lënt te jamono bi toll foo xamante ni parfois ñi war di eh, jubbanti wala boog ñi war di wax eh, jamono dina leen tënk wala ñu xat ba place yi ñu war a taxaw yëpp du ñu fa mën a taxaw eh, en tout cas ñuy ñaanal ñëpp koor koor bu ñu nangu waaye ñaanal leen korite jàmm di baalo ñëpp àq te di leen baal si Seydina Omar sa kàddu yu tàggatoo. jërëjëf sëñ Mansour waaw ñu am mbégte bu baax ci jotaay ñaan yàlla mu nangu ko te gërëm ko ñaan yàlla mu nangu ñu koor gi nangu lépp luñ ci jaamoo suñu nawaafi suñu sadaqa suñu daawaat yëpp ci barke alquran kay incha allah jërëjëf sëñ Omar sa kàddu yu mujj waaw di kontaan rek ci waxtaan am na solo trop di wax ne luñ ci wax mu dëppoog sabab yaa nag yàlla ful te jëriñ noo xam ne njuumte la yaa nag yàlla boole jégal dañu bëggoon rek comme ni ko waxee partage ak nit ñi suñu baal yi suñu gis-gis fa tabaarkalla di wax déwénati salaamaaleykum aleykum salaam wa a wa barakaatu Seydina Omar Abdoulaye Dramé lañ ñu àndaloon ak Seydina Omar Alioune euh, Dramé léegoo léeg nag ñu jiituwaale ci benn tontu léegoo léeg nga dégg ku ne la ñu ne ñu ne ñu ne sëriñ diw wala boog diw loolu la santaane woon wala loolu la digle woon ñu ne diw du moo ñuy digal wala du moom la ñuy topp euh, ndax borom bi lañ war a topp waaye nag bu diw doxee sa diggante ak sa borom yaakaar naa ne yoon la la nga xam ne moo di dénkaaneem lañ ci mën a roy nga roy ko te yaakaar naa ne kenn ci ñun jàngagul ba weesu li nga xamante ni moo di xam-xamu mag ñi ba léegi ci seen pënd la ñu nekk rek wax dëgg yàlla bëgg ko xeeñtu te mënaguñ ci yegg en tout cas ñu ngi di sant bu baax baax di leen gërëm ci déplacement bi di leen jéggu itam ndax bis bi xarna lool waaye itam sant gërëm bu baax baax eh, ñi bàyyi xel Arafat info waaye itam eh, sant bu baax baax Arafat Couture eh, nekk ci 77 300 wala bokk 136 54 91 77 136 54 91 moom la ñu àndaloon ci.